maître Pape Mamay Diokou ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay euh, monsieur Dramé di la nuyu bu ba a nga nekk itam président mouvement Sénégal Nafa bokk nga itam ci conférence des leaders coalition Diomaye président ban analyse ngay def déjà ci situation bi nga xam ni moom la ñu nekk ñenn ñi sax ñu ngi koy laam-laamee ab crise politique ginnaaw rek ba nu toxalee li nga xam ni moo jëm ci élection présidentielle bi ba conseil constitutionnel am taxawaay bi nga xam ni am na ko ci. nee naa la njëlbeen que Sénégal mu ngi yoon ci situation bu nga xamante ne suñu assemblée nationale mu ngi dox suñu gouvernement ak pré mu ngi doxal. Euh, justice bi euh, nga bañ ko wala nga nangu ko mu ngi euh, jël ay dogal justement nag ci loolu la sax la ñu demee ba gis ni que conseil constitutionnel dem na ba taxawal décision ba nga xam ne duñ dañ jàpp ne que décision bi tegoo méngoowul ak suñu charte bu gën a kaw mi constitution méngoowul ak suñu yeneen loi yu nga xamante ne moom moo tëral ay kuréel yu nga xamante ne ñoo bànqaas réew mi ba Euh, président taxawu le 3 février ci lu nga xamante ne jaru ko woon mu ne day tukk élection parce que dafa am benn nit bu nga xamante ne buggoon nag candidat te yàlla dogal na nekkul candidat muy monsieur Karim Wade mu toog fi mu toog mu bind nga dafa am kenn ku njéem a guerre ay magistrats yu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci conseil constitutionnel ba loolu jaral leen na nit dem assemblée nationale pour ñu voter benn loi bu nga xamante ne. ñun dañ jàpp ne que loi bu dafay violer non seulement la jurisprudence du conseil constitutionnel bu nga xamante ne moom la rendre 2016 parce mais aussi méngoowul ak suñu charte réew notamment article 92 donc ci la conseil constitutionnel bu nga xamante ne suñu ndaw réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci assemblée nationale mooy suñu député yi bu nga xamante ne Birame Souleye Diop moo leen jiite ak ñoo Guy Marius Sagna ñu dem def recours ñu defee recours rek ci la conseil constitutionnel ne leen président de la République dogal bu nga jël le 3 février dogal boobu méngoowul ak yoon donc euh, tax naa ko loi bu nga xamante ne moom la ñu voté ci assemblée nationale le 5 février loi boobu méngoowul ak suñu charte réew muy conseil ñaari dogal yooyu yëpp la jël teg ko fële euh, ne elec euh, décret bu nga xam ne bu bu novembre bi mooy mooy dox normalement élection le vingt cinq février la waroon nekk waaye ci même décision bi conseil constitutionnel nee na ci considérant numéro vingt nee na dañoo jàpp ni que depuis lors mënuñu organiser élection le vingt cinq février maanaam impossibilité matérielle organisée ci la ñaan euh, ñu nga xamante ne ñoom ñu am dogal pour organiser élection nañu xool nu mu gën a nu mu gën a rafetee mu toog ak ñu nga xamante ne ñoom la sekk langu politique muy candidat pour ñu mën a seetaat beneen date bu bees lu gën a gaaw ndaxte président de la République Macky Sall mandaam bu yéex a yéex a avril lay jeex. déjà gis nañ ci ñaar fukki candidat yi. fukki candidat ak juróom ñoom sàkku nañ ngir ñu amal élection yi laata rek avril. buñ ko waxee dañoo dëggal rek lu conseil constitutionnel wax parce que conseil constitutionnel nee na bu ñu toogee ba le 2 avril te defuñu élection mën nañ jàpp ni que de à partir du 2 avril amatuñu njiitum réew Sénégal donc pour loolu bañ a am dañoo war def suñu kéemtulaay kattan ñu organiser ay élections ci diiru mois de mars premier bi ak deuxième tour bi bu dee deuxième am na donte man jàpp naa ne que deuxième tour am parce que Bassirou Diomaye Faye njort nañ ko dina moo tax collectif des candidats yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kii bi ñu ngi concerté wu seen biir ñu ngi waxtaan seen biir parce que ñoom aussi ñoom ñu ne les concernés donc pour que ñu dem ñu def consertation ak jiitumu réew pour ñu xam ban ndat moo ci gën man de am naa ci sama xalaat personnel. lan moo ci sa mooy ni que élection warul romb lu 3 mars. ci naka wala warul romb le 10 mars bu yeex te yeex loolu euh, loolu euh, loolu mën na nekk donte euh, concertation la ñu war a entre le président de la République et les différents candidats. man jàpp naa que le collectif des quinze candidats ñoom bu ñu demee ba am benn kàddu bu nga ne moom la ñuy waxee incha allah jàpp naa ne seen proposition mooy nekk proposition bu nga xam ne moom la chef de l'état war a war a consolider war a nangu ba jël décret bu nga xamante ne mooy dëggal date boobu ci lu gën a gaaw ndaxte mandat bu war na jeex le 2 avril et que le 3 avril mu def passation de service ak le nouveau président de pour mu abal ñu réew mi et que keneen mën a doxal. yéen coalition Diomaye président amagoo leen ci ab proposition ci date yi nga xam ne ñu ngi koy joxe. officiellement ñu ngi waxtaan suñu biir mais proposition bu leer nañ bu ñuy joxe ñun dañoo jàpp ni que ci lu gën a gaaw gaaw gaaw la ñu ko war a organiser euh, mais ñun peut-être que dañuy waxtaan ak yeneen ko ak collectif bi pour benn date mën waaye ci xalaat yi nga mën ne mooy su ko mooy génne de gauche à droite suñu biir mooy que soit c'est le trois mars soit c'est le 10 avril euh, le 10 mars donc mënul jéggi loolu mais d'ici quelques quelques euh, heures wala quelques jours rek ñu joxe suñu position ci lu gën a que loolu sénégalais nañ ko xam mais lépp lu ñuy ñaan président de la République avec tous les acteurs qui sont en charge de l'organisation matérielle de l'élection de de présidentielle mooy que dañoo war a jox tous les vingt candidats ku nekk sa fichier électoral joxe cartographie des bureaux de vote dans toute l'étendue du territoire et au niveau de la diaspora joxe fichier électoral bi à tous les candidats pour que sénégalais bu nekk mën a xam ndax turam mi ngi ci biir fichier électoral bi parce que gis ngeen ni ci période bu nga xamante ne moom lañ doo waxtaanee affaire parrainage am na sax ay candidat ku mel ni euh, le professeur Mary Teuw Niane moom nee na dafa parrainé boppam waaye dañ ko ne yow moom nekkul ci fichier am donc yooyu dafay doon ay gàllankoor yu nga xam ne tant que amoo fichier bi mënoo contrôler kan ak kan moo nekk ci biir fichier bi donc ñun loolu la ñuy ñaax suñu administration électorale mu mu leeral mbir yooyu pour que ñu mën a am élection yu leer élection yi nga xam ne ñëpp di ci bokk te euh, ku mun sa morom duma et Sénégal mën a tànn président bu nga kenn du ko contester sa légitimité et sa légalité donc loolu laay ñaax actuellement l' administration électorale du Sénégal te loolu xam naa ne lu mën a nekk la. Hmm. Front démocratique ñoom lu ñu bëgg mooy ab élection inclusive ñoom sax lañu ñu namm wala lu ñu bëgg mooy ñu dooraat li nga xam ni moo jëm ci processus électoral bi euh, di nga ànd ak ñoom si seen bëgg-bëgg boobu wala. non ñoom nag la ñu xam ne ne l' article quatre vingt la constitution nee conseil constitutionnel bu demee ba jël dogal dogal bi kenn du ko mën a werante kenn du ko werante donc conseil constitutionnel bi nee na Sénégal am na vingt candidats vingt candidats yi ñëpp xam nañu leen conseil constitutionnel nee na président Macky Sall mandaam lay jeex le 2 avril donc nañu fexee ba ñu organiser élection ci diggante bi leneen luñ ci mën a wax rek loolu méngoolu ak yoon te man lu méngoolu ak yoon nag du ma ci mën a ànd. ñoom nee nañ ci lañ bokk. Euh, fa fan lañ bokk. mais dañoo am ay kuréel ci réew mi te kuréel yooyu conseil constitutionnel euh, kii euh, constitution bi moo na jox ay ay ay ay ay ay euh, ay pouvoir mm-hmm. ay sañ-sañ donc bu demee ba jël dogal kenn du ko werante kenn waru ko werante donc vraiment nañu plié wu et comme lu ma ko waxee ci français les décisions du conseil constitutionnel sont d'application immédiate et erga omnes maanaam ci ñëpp lee dal y compris le président de la ne amagul amul beneen pexe budul nangu lu conseil constitutionnel dogal. dañu gis ni yéen yéen a ngi ci terrain bi di campagne ci li nga xam ni moo jëm ci élection yi kon da ngeen jàpp ni ba tey élection yi war na mën na am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bien vrai que conseil constitutionnel nee na app boobu mënuñu ci amal élection. ñun ñun légalement juridiquement loolu mooy suñu taxawaay ndaxte. donte président jëloon na dogal le 3 février te ñu dogal bi bi méngool ak yoon ak suñu Euh, donte assemblée nationale ba nga xam ne jël na benn loi bu nga xam ne ñu aussi jàpp nañu que euh, loi bi méngool ak suñu yoon ba suñu euh, député yi nga xam ne ñooñu fa nekkal ñoom Birame Souleye ñoom Guy Marius Sagna ñu dem clamer ko ci conseil constitutionnel waaw donc ñun dañu jàpp ne que boo defee recours ci conseil constitutionnel en matière électorale décision boobu dafay ajandiku loolu la français di wax suspensif donc si c'est suspensif ça veut dire que bala bopp conseil constitutionnel di jël ñun on était légalement dans une période de campagne électorale moo waraloon ñu demoon euh, Thiaroye ñu dem Rufisque ñu dem fu ne di waxtaan ak ay sénégalais ñu installé suñu commité électoraux yi ci département yëpp ci Sénégal ak ci diaspora bi pour waxtaan ak sénégalais pour ne leen ñun ñoo am candidat bu gën ñun ñoo bu gën a baax te ñun vraiment boo leen dénkee réew ñun ñoo koy mën a soppee ba mu ñu doxal réew mi comme lu ko sénégalais bëggee maanaam changement en profondeur sur beaucoup de domaines de l'économie muy ci wàllum koom ci wàllum napp ci wàllum lépp daal loolu la ñuy waxtaan Sénégal parce que sénégalais dañoo soxla changement te ci loolu la ñuy dox ba conseil conseil demee ba xam ne ne matériellement mënuñu organiser session ñun aussi ñu def ne que conseil conseil bu dogalee kenn mënu si dara donc dañuy ñaan gën a gaaw mu fixer ñu date élection pour que ñu continuer di waxtaan ak sénégalais donte bàyyi ñu sax di waxtaan ak sénégalais parce que encore dëmb rek ñu ngi ci terrain di waxtaan ak ay sénégalais parce que loolu mooy suñu devoir et loolu mooy suñu suñu wargar parce que on veut faire gagner notre candidat dès le premier ci jamono joojee gis nañ itam ngeen génne ab communiqué di ñaawlu bu baax anam gi nga xam ni seen candidat bi nga xam ni teg nañ ko loxo jàpp ngeen ni dëppawul ak yoon te dañ ko war a bàyyi. xam nga suñu charte réew ñoo ne képp ko nga xamante ne candidat la dañ leen war a yemale euh, euh, heure euh, booy dem RT bu ñuy dem pour wax seen programme ci RTS kii de am deux kii am deux minutes depuis que le le conseil constitutionnel a publié sa liste le 20 janvier heure boobu la ñu waroon leen lendemain ñu génnee Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci kaso ba mu bàyyi ko pour mu dem doxal programme am leneen lu ma ci mën a teg aussi mooy que. mooy euh, moom suñu leader bi muy Ousmane Sonko bu nga xamante ne te yàlla moo dogal mu nekk l'homme politique le plus populaire en Afrique le chef de l'opposition sénégalaise te vraiment niñ ko jàppee ci ay euh, ay jàppale loolu dañ ko war a bàyyi donc loolu la ñuy ñaaxaat président de pour que mu bàyyi suñu candidat. pour que mu bàyyi suñu leader de la coalition naturelle monsieur Ousmane Diop Ousmane Sonko pour que ñooñu ñëw jàmmaarloo ak sénégalais pour waxtaan ak ñoom ci lu ñu bëggee jëmale Sénégal ci juróomi at yi nga ne bu ñu leen dénkee réew ñu doxale ko noonu. mais ci jamono jooje gis nañ ni itam li nga xam ne moo jëm ci ay libération yu ñuy duppee détenu politique naka nga ko gisee. waaye ñu ngi koy sant yàlla parce que koo jàpp ci lu nga xamante ne man dama jàpp ni que méngoo ci yoon boo demee ba nga xoolaat encore nga bàyyi ko ci biir ñun dañ ci sant yàlla ñuy ñaanal ñu nga xamante ne ñoom ñoo génn nañu dem profiter seen vie de famille ñu ñu defaraat seen vie de seen vie personnelle parce que boo jëlee kilifa bu nga xamante ne da liggéey wala yore liggéey jàmbur mu ci dog nga jékki-jékki rek euh, génne ko këram dem ñu denc ko kaso xamoo naka lay dundal famille am naka lay doxalee waa këram yooyu yëpp lu métti la waaye euh, lépp lu métti day jeex te jeex na tey ñu ngi santat président de la République mu continuer di libérer ñeneen ñi yeneen prisonniers yi nga xam ne c'est détenus politiques yi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi fii fii ci mbir Dakar ak ci région yi boo demee Tamba noonu boo demee Kolda nu boo demee Ziguinchor bëri na encore suñuy ndaw ñu nga xam ne ñu ngi foofu tëdd ci kaso yi te dara euh, taxul budul seen euh, droit démocratique la ñu doon revendiquer pour jàppale seen candidat muy Ousmane Sonko loolu mooy tax ba Sénégal mën a juboo ak ak ak moom parce qu'il faut réconcilier le peuple sénégalais avec lui-même parce que Sénégal comme ni ñu ko xamee benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. ci loolu est-ce que waruñu leen indemniser fan yi yëpp yaa ngi dégg itam coowal amnistie ci Ousmane Sonko euh, lan moo ci sa xalaat maître. waa xam nga moom ci wàllum santé sax wala ci yeneen conséquence yi nga xam ne mën na jubbee ci loolu nga xañ ko. nekk ak njabootam nekk ak sa soxna wala nekk ak sa jëkkër wala nekk ak say doom wala am sa liggéey bu nga xam ne moom nga doon jëfandiku di ci sutraw boo génnee kaso liggéey boobu nga perte ko comme lu ko Falla Fleur perte loolu mën na nekk lu nga xamante ne mën na sous-tendre wala justifier ñoom ñu nga xamante ne jàpp nañ ko ñoom ay détenus politiques ñu mën nañu organiser wu en collectif dem clamer ko au niveau de la justice pour wax état nañ leen condamné pour ñu jox leen ndàmpaay non am na si moom nu ma ko waxee rek amnistie mënoo amnistie nit parce que amnistie loi bu nga xamante ne euh, euh, ah, du du du du viser benn nit amnistie aussi contrairement à la grâce du nit lay jëbal mais dañuy amnistie ay fait maanaam ñu ne. ñëpp ñu nga xamante ne dañoo luubal xaalis euh, di at nangam ba at nangam dañ leen war a baal wala ñu ne képp ku nga xamante ne rey na nit depuis deux mille vingt et un ba tey dañ leen war a baal yooyu mooy yi nga xamante ne mooy ci loi d'amnistie bu ñuy woowee général te boo dugloo suñu leader Ousmane Sonko moom nee na musul nekk demandeur d'une quelconque amnistie parce que amnistie du moom les euh, arrangé mais ñoom ñu nga xam ne ci këru Macky Sall lañ bokk ñoom les gën a arrangé donc vraiment Ousmane Sonko ak ñu mu àndal mosuñu ànd mosuñu dox ci lu nga xam ne mooy ay demande d'amnistie parce que amnistie dafa doon lu nga xam ne lu grave ci ay réew yu nga xam ne dañoo am ay xeex mu am ay ay ay ay euh, ay génocide ñoom ñoo koy def mooy acte un acte très grave. mais Sénégal presque chaque dix ans dañuy jël ay débat sur amnistie ñu bugg ko banaliser bugg ko fooye ci lu nga xamante ne lu grave la lu nga xamante ne kenn mënu ko di ko fooye ci ci lu nga xamante ne lu ay crise politique ñu jël ay amnistie pour mën a justifier l'impunité te man amnistie bu nga ma ne day justifier impunité man mënu ma ci dox te loolu la Ousmane Sonko wax depuis ma xam ko ci langum politique. jërëjëf euh, maître Pape Mamay Diockou. jërëjëf monsieur Dramé jërëjëf à ci dalal bu ngeen ma dalal. di fàttali ni yow avocat nga yaay njiital mouvement Sénégal Nafa bokk nga itam ci conférence de leaders yu coalition Diomaye président. jërëjëf. président. jërëjëf. président.